والقلم وما يسطرون Serigne Mbacke mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ dara jàlle bis bi ñoom ñoo yëkkati kàddu ñoo yëkkati kàddu ginnaaw bi ngeen seetee seetaanee reportage bi mu ñoom itam ñu ñëw vraiment àndak mbooloo mu bari délégation bi nga xam ne moom lañu àndal ñoo koloo kol yu bule yi waaye fekk fi ñoo xam ne ci délégation bi lañ bokk te ànduñook ñoom ndax ki nga xam ne moom lañ tudde bis bi taxawaay bu rëy bi nga xam ne moom la am ci alquran am ko ci démb moom la waa c 3 bëgg ñu fàttaliku ko bëgg ñu nafaraat dundam gu am solo googu looloo tax ñu tudde ko bis bii nga xamante ne bisu yaatal mbindum alquran la sëñ Ibrahima bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu walakinani ufaddil an uqaddima a'da al wafd allati ma'i qabla bismillah bismillah maa ngi ànd ak sëriñ Modou Mbacke si sayxaani saqiqaani sëriñ Mor Khady si wa sëñ Malick Bassine si Bassine ak Khady déedéet sëñ Mor Khady si ak sëñ Malick Bassine si soxna Khady ñaa ngi mooy seen yaay man maa mag ci sëti sëñ Mor Khady si ci Touba ak ci fii ci salle bi sëñ Modou moo mag ci sëti sëñ Malick Bassine ci Touba ak fii ci salle kon délégation bi man la ak sëñ Modou Mbakke ak sëriñ Jili Mbakke moom alaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbakke sëñ Mutaar Xadi jàngal mu bëgg ko ba jeex tàkk ci moom sëriñ Abdul Ahad Mbakke doomi sëriñ Abdul Karim taaw alaaji Mouhamadou Fadal Mbakke moo waroon a ñëw moo bëggoon a ñëw waaye mu yebal ñetti doomam sëñ Abdul Karim ki mu tuddee baayam jiite leen wa xayru wa xayru wa ma leen a lim parce que ëpp nañ cent personnes sëñ Mourtala Abdourahman ñu ngi fi samay rakk ak samay jarbaat ak samay yàpp rek alla si ni yantamuuna ila usrati sëriñ Mor Khady si wa sëriñ Malick Basin si wahum ahlu salaamati wal hidaaya kon waxtu bu ngeen déggee ma ne ahlu salaamati wal hidaaya waxaa saa yax ni kon euh, ak moom ngoog fàtte wax na ñoom day na mën ma leen a lim ëpp nañu cent personnes kon ñooñu ñooy délégation bi kon bismillahi irrahmani irrahim walhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala almabuusi rahmatan lil alamin ashaab alfadilati alhaadirin wal mushahidina wal mustamiin asxaab haasihi alwujuh annayra almunawara bi nuuri alqur'ani alkarim salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu yàlla sunu borom tabaraka wa taala yàlla na leen sàmm te musal leen te mosal leen wa baad bismi haailati alcheyqayni alchaqiqayni sëriñ Mor Khady si wa sëriñ Malick Basin si bi sifatin xaasa aw bismi haailati aljaddayni alchaqiqayni maam Makhtar Penda si wa maam Abdou Khoudia si bismi haulaai ilkiram laa yëkkatee sama kaddu di ndokkeel mbooleem jullit yépp bi xulóoli sahri ramadan al mubarak bismi haulaay aydan laay tànnee siyaara yi gën a mat te gën a rafet jëmee ko ci ahlul quran wa minhum ahlul quran allasina hum ahlullaahi wa xaasatuhu bismi haulaay aydan laay waxee ni maa ngi kañ aka bakk aka mbassu coono allasina taxallamu alquran alkarim wa xallamuuhu li wa xallamuuhu xayrahum bismi haulaay aydan laa yëkkatee bi ku lu suréerin samay ndokkeel jëme ko ci ñi nga xam ci mbooleem finaliste yi ci konkur bii di ñaan yàlla yàlla na leen barkeb alquran dal te yàlla na yàlla bëril seeni moroom may encouragé ay الذين شاركوا في هذه المقابقة مسابقة ولكن ndax damay wax maal asaf wala damay wax waaye nag lam yasilu ila darajati final maa ngi leen di wax ne leen waaw leen góor waay leen góor bu leen yokkat aywa dellusiwaat daanu du tax nga tàlli ñareet déedéet jógal bëri bëril boo jógee taxaw da nga dox dem bulen am benn complexe fa inna fi zalika falyatanaafasil mutanaafisuun maa ngi wooxi képp koo xam ne kii bokkagoo ci musaabaqa bii te nga sentir ci sa bopp ne yow dey indaka kafaa boo xam ne bii may na la nga man cee bokk maa ngi lay woo nga bokk si ihyaan lil qur'aan al karim ihyaan li kitaabillah maa ngi yëkkati sama kàddu ba tey di berndeel mention spéciale C3S wa fi muqaddimatiha alaaji Serigne Seck wa comité d'organisation bi ànd ñoom ci seen xel rafet kalaat créer concours bu mel nii importance bi mu am anwaa mutahaddida min min hulumil quran yi ci nekk du wattu alquran dong ilmu rasmi ma nga ca calligraphie ma ca kon te it nag bil kayfiya bi nga xam ne ci lañ koy organiser maandu ga professionnalisme ga loolu lépp tax na maa ngi leen di jox wa antum tastahiquuna bi mention spéciale amma Serigne Makhtar Khady Sy mi nga xam ne moom lañ dara jaalee bis bi waxtaan ci moom dana jafe rawatina man man dama fer rek ñu jox ma ko am ci am mu am ñaari côté loo xam ne lii moom da ko mën a wax xam naa su ma dee wax ay baat foofu laa koy wax ak goo xam ne kii moom dee su ko mën a wax dañ koy dund dund koog moom di ko gis saniya par saaniya daqiqa par daqiqa ila axiri waaye daal li xam te am mooy lan gëm yàllaam ga ak tawxiidam ga lillaa foo ko nattu rek weesu na foo ko nattu weesu na fi darraa'i wa sarraa'i léppam da ko daa ci yàlla rek mënoon naa andi ay ay amsila kasira waaye xaju fi Serigne Makhtar كرس حياته في في تربية أولاد المؤمنين وتربيتهم القرآن الكريم te ku ko mën la ko ndax mooy lan du gedd kenn du yokkat ci dara nit nu mën a mel ñëw ci moom yaay nef yaa fay nekk ba mu yàgg nga dem waaye suñ maxtaar du gedd kenn te it la muy def ci yow ak noo mën a mel du yokk du yokkat ci yow moo taxit nag ñu bari ñëw nañ fa ak ay melokaan waaye wa fi nihaaya ñu bokk min xiyaari naas macha allah sëñ Maxtaar Xari ku fonkoon liggéey la ku xamoon liggéey la ku mënoon a liggéey la ku nangu woon a liggéey la ku daa liggéey la te daaw denc dara ndax moom du tànqam lu mukk farata du tànqam lu mukk farata sëñ Maxtaar Xari ngir bañ a guddal kon damay wax ne sëñ Maxtaar Xari kaana lillahi abdan muxlisan fi ibadatihi wa kaana aaliman saxiyan bi ilmihi wa kaana wa kaana wa kaana wa fi l axiri sëñ Maxtaar Xari si kaana muridan sadiqan wa sidiqan fi iradatihi ma sha allah jaxalahu llahu min as-siddiqina wa suhadaai wa salihina wa wa salihina wa hasuna zalika rafiqa amiin amiin yàlla nañu ko yàlla fayal amiin yaa rabbal alamin sëriñ alaaji Sekk sukkuran jasiidan ci suñ kii nga xam ne na mu toll ci ñun ak mbooloo mi ma àndal ñëpp kenn mënu koo wax sukkuran ci bi nga xam ne ni bii sédd nga ko cër bi wallahi yastahiqu aksar min dalika wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa jërëjëf jërëjëf salaam wa rahmatullahi euh, xam naa lii mu yor rek lay leeral. waaw euh, wala nga jox suñu mbàkke joxal suñu mbàkke moom. ah mën nga koo leeral ci benn minute rek. waaw ci lu mu gën a lu mu a tënk rek jege ko euh, maanaam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar maanaam jubluwaay bi mooy xam nañ ko mu ngi doon yëkkati kàddu ci ñi dara jaale bis bi wax si moom lu am solo ni mu jeexee la dundam gi ci lislaam xidmatan lil quraan loolu tey itam ba léegi loolu ak njabootam di ko taxaw waaye ñoom itam ñu liggéey liggéey bu am solo bi nga xamante si nii euh, yëgal nañ leen bis bi ni yéen nañ ko dara jaale njaboot gi dañoo dajaloo lu tolloo fukki nit ak ñaar fukki nit ak ñaar dañoo dajaloo bind ab kaamil biñ bindee ab kaamil nag ñu ni kaamil boobu dañ koy jël tere la ko alaaji sëriñ sekk jox ko ko nag takriman lil quran loolu mooy lii ngeen di gis ñu yor ko tey loolu dafa mel ni mbokk yi du asar ndax dafa mel ni Seydina Ousmane ñam jëloon di leen binduloo kaamil yi di ko tasaare ci waxi lislaam yi fukki nit lañ ak ñaar kon bu ñu jëlee fukki nit ak ñaar bindi kaamil bi di ko jébal Alaaji Serigne Seck Mbacke loolu dafa mel ni ko honneur la te itam teranga la. am na solo kon kon public bi seede ko ñu jox ko Alaaji Serigne wéyal programme bi loolu lu am solo la ndax ku woote yaatal mbindum alquran fukki nit ak ñaar tuddee ko nitu alquran muy ñëw di day mel ne defar ñoom def na li ko war di ay gone ñoo ne alaaji sëriñ Seck lii mu def rëy na ci ñun rëy goo xam ne gii amuñu mënuñu lu dul alquranul karim dañ ko bind dañuy bind ab kaamil ñu ko sargale ko bismillah ñu ngi lay sant bu baax sant goo xam ne nag famille ñi sant si ñépp ñoo la koy sant famille la boo xam ne nag famille bu yaatu la sant woo xam ci Sénégal tey doomu soxna mu ngi ci biir famille bi te ki nga tuddee bis bi muy sëñ Maxtaar bànneexu àdduna man moo ma jàngal yar ma bànneexu àdduna mosu koo am du kër bu mu dëkk du oto bu muy dawal du ñaw muy lekk daara joo xam ne waxtu nekk mbooloo mu dul jeex ñoo fa nekk amul ñaari cin benn cin rekk la am li taalib yi lekk moom lay te bàyyam bi ko jur di sëriñ Mor Xaris yi ak sëriñ Malick Bassine ñooy mbokkum réew mi macha allah ñu daaneel foofu ci biir loolu seen baay bari barke lool sañ ci dëkk yu dul jeex mbooloo topp leen waaye moom dafa jëloon àddinaam dëxëñ ko sànni ko fële jàkkaarloog sëriñ Touba lépp lu sëriñ Touba di santaane mu da ko def lu mu tere mu da ko bàyyi boo leen liggéey ak jaamu yàlla yow nag jant gi ñu la ameel eh, alquran dafa mel ni ñun mooy suñu néeg ndey wala suñ kër bàyyi ni ngi ci yëngoo nii fab sa ji lépp muy sa alal sa doole sa njaboot sa lépp nga def ko ci alquran loolu ñun daañu la sant daañu la gërëm waaye dañ lay bàyyi ak alxuraan rek jërëjëf alxuraan bii nga xam ne la tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko mos a tëral alxuraan tëralal te yoon bii nga jaar ñi ci jaar dafa bari man xaw ma sax lan moo la wan yoon wi ndimbalul suñu borom subhaanahu wa taala ndax alxuraan ci boppam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko tàmbalee bind ay saaba ñoo ko xalaat def ko moo tax bind dafa yemut ak dara tabarkàlla lu mën a doon bind ko ëpp doole ma jotal benn message ba tey sëñ Bassirou Abdou Khadr man maa ko fi teewal moo bëggoon a ñëw teew si fii tey ànd koo yow ba mu jax tàkk waaye xam nga programme sëñ Bass ndax calendrier lu fees dell la kon nag loolu rek laa bëggoon a seede jërëjëf kaamil bii nag ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne njabootu kër gi la ñoo ko bind ñu fukki ak ñaar di njabootu kër gi defe naa li nga bëgg rek lañ la indil mooy alxuraan defe naa amoo amoo yow lu ëpp lii gënoo bëgg yi lu ëpp lii kon nag ñu lu koy jox ci turu sëñ Ibrahima aada si ak sëñ Mourtala si muy ñaari xalifa sëñ Mourtala si ak sëñ Malick Bassine Ibrahima mii di suñu mag jiite ko ak délégation yi ñu àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu jaajëfal ko bu baax a baax suñu mbàkkee ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fay leen yokk ay leer suñu jur woowu di sëñ Maxtaar Xadi Si waaye itam jaajëfal bu baax mbokk yi ci liggéey bu am solo boobu ak kadob alxuraan boobu nga xam ne moom lañ joxe sëñ Mbàkke kon damay ñaan rek ñu njëkkante ak waxtu bi ndax eh, ci programme lañ nekk te moom waaw kaamil bi wane mooy bi nga xam ne fukki nit yeeg ñaar yooyu bind nañ ko ngir jox ko alaaji sëriñ sekk bu terale ko ko mu nekk loo xam ne moom alxuraan kuñ ko terale terale nañ la li gën a tedd ndax moom sharaf la pour jullit yëpp wa innahu la zikrun lak wa li qawmik wa sawfa tusalun moom ngeen di gis ni fukki nit ak ñaar ñoo ko bind jébbal ko ko terale ko ko mu nekk la waaw xeyra lil islaami diina wa man yabtaxi xeyra lil islaami diina falan yuqbala min wa huwa fil axirati min alxaasirin nee bi mu ubbee foofu la yem képp koo xam yaa ngi sonn te sonnoo si toolub lislaam sa coono boobu nen la kon day mel ni loolu dëppoo la boo xamante si ni mbokk yi lu am solo la bi mu ubbee foofu la yam loolu la borom bi tabaaraka wa taala dogal muy tawfiq sëñ Mbàkke mun ñu ko jàppe lu dul tawfiq di ñaan nag mu nekk liggéey boo xam ne bu wéy la waaye di santaale itam sëriñ Bassirou Dieng sëriñ Omar Sylla Baye Dame Diané sëñ Mayaane Samb sëñ si la ñoo ñëpp ñu ngi si biir jataay bi di ay nit ñoo xam ne ay nit alxuraan lañu si lañuy ñuy biir ak biti sëñ Mbàkke su ko defee ñuy sàkku si mbooloo mi rek képp koo xamante si nii jébbal nañ la kàddu nuñ ko mën a tënk rek ndax ku ne xam na ni jot amul te tey programme yi bari na anta bi ni'mati rabbika bi majnun